tuub leen tuub naa mbir maa nga poroxaan jenn jigéen joo màggal gu màgge royo waay la tuub leen tuub naa mbir maa nga poroxaan jenn jigéen ju am màggal ge royo waay la

li ma am yëpp dinaa ko ci def mm. parce que weer wii weeru tedd la lu ci waay def da ko gis lu ci waay def lu baax da ko gis mm. boo defee leneen am leneen lañ ci Porokhane fii nii mm. ah dëgg soxna Diarra la soxna Diarra moom di gàll dégg ngeen ni mu liggéey ba pare nit ñi nga xam ne ñoo fi

ndax xam nga ne paat moom mooy loolu cuune la mais mère bi moom naan la xelam day gaaw a jëriñ waaw def leen ndànk rek waaye ñu ngi ñëw léegi léegi ñu ngi ñëw xaale ñu xaale ñu ci bopp koñ rek jarul ngeen di sori nag ko ñu préparé ñu ma teg ñeen waaye daayira naan ko dañuy dem daayira xam nga tey la alxames waaw daayira ab drame bi waaw jeex na leen wax na dañuy dem daayira ngeen di dem soo yàlla daal fexeel daal taxaw bu ñuy waxal leen ko defee ñoom ñu xam ni ñuy def bu ëllëgee ñu xam ne bii weeru euh, ramadan la leylatul xadri la lu baax rek lañ ciy def. wallaay da ko si jaamu yàlla suñu borom may la nga bëgg. waaw guddi la xam ne moom tàmm ñu koo jaamu si yàlla. dëgg la waay di ñaan. dëgg la waaw dëgg la. na nga ci yàlla def jàmm. amiin waay yàlla mi nga xam ne mooy jàmm. te nga xam ne kum jàmmal nga am jàmm. yàlla na yàlla ko ay tub sax. amiin la. te bu ñu seet sama xol daay man boo ko waxee rek sama xol bi seet na buy fu ñu xam man nañ faral di daal. ñaari ngeen dam leen daal tey ñu ñëwaat ñu ñu waat dix-neuf heures dañ fekk ci kër gi. incha allah damay dégg. waaw fu daal gis ngeen ñëw. ay xale yu jigéen na ñoo ngi dem te man boo loo e ne xamatu ma lu ma yor waxal bu bu ko war a. dañ war a sori. ah. bu dem daayira tax nga def leen dugg leen soññu leen loolu pour lan la. ah man de dëkk bi mu ne nii rek moom moo tax ma yor. waaw dara ay jigéen lañ nga sàmm yow li li war sa diggante ak sa doom ma koy def. waaye kon naa yow jigéen ñi da leen di sàmm rek moo ko xam ma yaa ji bi. d'accord. lii lii toile cuune la. maanaam bu. loolu bi xam nga mère bi naan di teg. waaw mais paa xam nga paa bi du jël. waaw bi mu ngi doon xoolee. waaw moo tax def ma rosa waaye indi naa rosa indi nga ko. pamee baay mais yow mais mais mais ba léegi waxuma waxuma dara si. comme lan noonu. tout à fait. ah non booy bi naan tey la ñuy joxoon RP. looy wax nii tey la ñu war a teew. saa moom mooy loolu moom mooy loolu. non gars yi dañoo wax sax bu ñu ñëw dinañ ànd ak yow bu ñu ñëwee dinaa la si jox. waaw yow sadi trop waaw yow sadi. mais yaa ngi baax ni loo jël si xale yi. xale yi moom mooy. c'est ça lépp quoi. waaye ban taa de. benn état ñun nekkul ci yooyu noonu ñoo ngi ci yeneen. ci lan nga ne yow xale baax mooy ñoom ñoo nekk ci xale fii di yooyu noonu. waaye ci loo ne rek nekk nañ lu ko raw mais na xale yi mënuñoo ñàkk ci fii. bàyyi ko bàyyi ko. kii am li problème am li problème ah. xool dafay toog ba dee quoi. ah amul njëriñ njëriñ day toog ba dee. saa yu dee dañuy dee la fàtte de. su loolu la wax. ndem maa ngi ci gisoo xoolal ko yaa ngi nii di ñëw de. ça va. waaw waaw waaw naka ma def jàmm ah. naka koor gi nag. naa daal ci kaw ma kalmoon. waaw maa ngi wóor. saa yi ñëpp a wóor ñëpp a wóor. maa ngi wóor. saa la kii noonu ñu laaj laaj nan lañ ci ñu laaj moo kuréel. non man ah? mooy loolu quoi. tey waxtaan yooyu génne leen ma ci quoi. saa yi génne ñaata faay la. saa yi bul déglu ñii ñii di wóor leen kon. saa xamul lu mu bëgg. nii dafa ñaax expliqué ngeen saa yi nan ngeen def ba nax paa yi ba teew nii. paa bi moom cuune la loolu jarul naa ci ñoom xam nga. ñu nekk ci boppam xel mi mooy daw. waaw waaw waaw dañu koo tàmbali dañuy dem daayira. daaw ah waaw. noonu rek lañu mën a def pour gis leen. booy commencé ngeen a fenn. saa yi arrêté nañu. yow bu ñu demee yow ñoom bu ñu waxutoon daayira est-ce que mais da nga xam ne yéen ñeenti ji da ngeen a ñàkk a fayal. yow yow yow mënoo ñoo bàyyi ngir yàlla nga toog nga toog kii moom tàppe la kii moom kenn waxut ak moom. ndax moom moom day indi. alxatami nga wala yow alxaatum. non man bu la ñu lu neex waxal. yow lii sa problème. lu neex waxal mais xam nga da ngeen a ñàkk a fayal daf ngeen nekk nii ñu département. yow yaa ngi ñàkk a fayal yow moom yow moom toogal nii yow moom mboo màtte woon yow toogal nii yow moom toogal nii. parce que bëñ sax waaye yéen nekk leen bopp di wax ngeen. looloo bëñ sax bay màtte. est-ce que xam ngeen ni yàlla dafay wax bàyyi jëf waa bu boobaa kon nag yow bu yàlla ñëwee yow du la fay wax du la fay jëf. waaw toogal man a jëf jàng yi yi man dégg naa ko da ngay jàng waaw yow mais eh, yéen mënu leen déglu kii ah. tant que dëkk bu mel nii ah. ñeen dajee fii di wax seen waxi ngelaw yi waa bi kii mooy kan damaa xam ku doon yàlla bu ñu xam sax ku mu doon yow lan la kii moom alxatami la rek. ponkal em ni yéen war dam julli moom. bon ñun ngeen nekk bi tuy ñàkk paay di ba xameewu leen imam bi. ngeen dooni mutkallaf ñu lay nax de wuy ma paay ni la ñuy def rek buy solo nii génn nii. ñun sax seen daje bi daa am ci gënoon a jekk. maanaam ci toog fii di wax waxi ngelaw. maanaam seen morom yi ci dëkk bi yëpp ñu organisé ay daaya. xam nga li may laajte man bu fekkee yéen ñaar yàlla moo leen fi yónni wala da ngeen a doon ay malaaka ngeen waxal ñu yéen lan la. waaw loolu question du ngeen ñu bàyyi gars yi. ñu ngi eh, eh, eh, arrête kii mu ngi bëgg a wax dëgg de. ay leen di waay arrête ñu yow dañu wax yow moom kii mu ngi wax yéen yéen yéen ñu wax dëgg ndax man damaa wóor yéen a ngi ma yàq sama koor ndax yéen kenn wóoru. waaw yaa waaye dëgg la wax de. lu ñaar wax rek dëgg de. ku baax hmm. ku baax yow la ñuy déglu léegi. yéen xanaa da ngeen a bëgg lu baax Ah, ah, bëgg lu baax bëgg lu baax tax wala da ngeen a xamut nu ngeen di wutee lu baax waaw loolu xam ku xamut day laaj borom xam-xam bi li ko teg mooy ku xamul ñëw ci moom laaj ko mu xamul waaw waaw sëñ bi ma ngir yàlla nga toog nga ni bëgg nañoo xam dañoo xamul léegi xamal ni damaa génne sama kër doon tudd tàng dimbali ñu rek nga toogal bëgg na noo xam toogal toogal loolu ma dem waaw ngeen na ma toog na waaw léegi imam mhm. man dama lay laaj ñun ay ndaw lañ te xamuñu mhm. suñu bëggee di def li nga xamante ni moom la dëkk di laaj nan la ñuy def. Mm-hmm. ku xamul. Mm. day laaj ku xam waaye ku xamul laajuwul ko xam man xaw ma lii lay bu ngeen bëggee lu baax da ngeen di dem ci ñu jàng ba xam ñu yeeree seen morom yi rek ñoo ci dëkk bi te weer yu ñu nekk weeru koor la mm-hmm. na ci bis boo xam ne bis bu ñëpp tànn la muy lay latu xadar mm-hmm. te ñëw na ba noppi su ngeen bëggee tegee ci yoon da di waxtaan. bu bis ba baa si suur ta xadar gi ñu éviter ay kilifa ñu wax ak yeen lan moy diiné tek leen ci yoon ba nga xam ba ngeen xam yoon mo gën ni ngeen def ni baaxul deug la kay fi romb kii du leen naw la man nak dama doon fuddi sama tank rek maa ngi ñew dem ngeen waxtane rek señ laaj la hmm. comme ça nga woor bokk bi nga xam ne yu di def nak su dul non day yaq sa koor wala waaw waaw lool lu woor day dem ci ñu woor ku ku wooru dem ci ñu woor waaw man lool kay man pourtant lool pourtant lool wax na ko nag mais mais dama maa déggut mais déggantuwuñ nag imaam fi ngeen woor man ngeen da ànd yéen ñu woor walaatu saayib xayru man yër sidu ko war naay kuli saayib yéexlu ko nit ku nekk ni nga mel da dem seetu ku mel noonu nga ànd bi kañ la alxames eh, yow baax a takku ju tugg foofu noonu baa non man kay fajar salaatu ah, xayru mi jërëjëf imaam waaye tey rus naa xanaa di la ñaanal rek yàlla yàggal la fi suñu kanam danoo xamutoon nag waaye gannaaw xam nañ mm-hmm. bu soobee yàlla dineen def li nga ba bis ba maa ngi ñëw dem ba bis ba waaw alxames si fajar yow moom war ngaa changé yow man yaa ma waaye dina rek. loolu yëpp am na ñëpp am na ñoo xam ko waaye dañu fexe rek ñu déglu. waaw sama la faa la néew naa leen dëkk am rawli ko jóg leen ñu dem rek da ngeen jéem a baax. waaw loolu dama la. ma ne xaj na yàlla fay li ñu xaj ñu jox am na. nañ toog yegg suma ba. dama ñu toog ñu toog yegg suma ba quoi. daal. ñoo ko bëri ñoo ko mais musuma am kersa rawatina tey. da ngay xool sa booy bi Fatmata ni mu doonee xale. teg ñu foo xamante ni da wóor na ni ñun ñoo ko ci waroon a teg xolal laay muy wax ñu naan ko déedéet waxoo dëgg waxoo dëgg te tey moo mujj am dëgg si ñun war na noo xoolaat suñu bopp na xool bu baax lañu ñu man moom ku changé changé naa ku changé wu changé naa nga bàyyi ci xel bu baax lii moom dootuma ci ànd ak yow di ko def bu lay leer mi sa jaww loolu nag laa amoon na ma leer dara saa moom baax waaw léegi nañ dem baal. waaw léegi nañ dem fexe waajal après dëgg incha allah alxames gi. jéem a dajee foofu waaw parce que tey la mercredi. maa ngi doon ñawlu grand bu bu baax sax moom lay dóor. waaw def noonu.